mën a ñàkk nga ñëwal ñu ci nga xam barki dee moo ñaay moo fi daw fële ci Grand Théâtre Sidi Diop daal di woote Zénith euh, euh, ci Sénégal daal di fay ko ñu def duo bu am solo duo bu neex ba ñu ne Wally Ballago Seck juboo nag ak ki nga xam ne di Sidi Diop naka nga jàngatee waaw loolu dama ci am mbégte ak kontaante bu rëy parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar wax chaque jour rek nay tukki di Sidi mënta fexe ba ni président Waly war a ci réew mi du ko fi mel baat nday tukki président Waly mënta fexe ba ni Sidi war a mel ci réew mi du ko fi mel kenn yàqul sa morom ku ci ne yaa ngi ci sa yoon di doxal li ngay doxal ñi la bëgg di la wuy si ngay am la nga war a am di jëm kanam te delloowoo euh, taxawoo ginnaaw benn yoon ngir yaakaar ci nit wala sóor nit wala bàyyi xel nit président Waly nag loolu mu def jikkoom la ndax moom wax dëgg yàlla li ma wax rek lu ñaaw loo teg ci daram da nga ko ko sosal lu ñaaw loo teg ci deram da ko ko sosal waaye xamul lu ñaaw amu ko du ko wax du ko jëf damay seere nag te yàlla rek tax ndax koo àndal ñaari at mu dugal la ci biir boppam boole la ci vie privée am di wéet ak yow di tënk ak yow ay kàddu di wéet ak yow di la dénk boppam di dem di seeti ay nitu boppam di la yóbbaale di am alalu boppam war koo nëbb di ko bokk ak yow kooku yaakaar naa ne boo seedee ci moom wàcc nga lii mu def jikkoom la lii la xam muy wax lu baax jëf ju baax suturaal ay mbokkam suturaal ay nawleem jàppale ay rakkam ni mu ko defalee Sidi barki démb noonu la ko defalee Tarba noonu la ko defalee El Hadj noonu la ko defalee Momo noonu la ko defalee Paama defal na ko xale yëpp Sidi la ko mujjee defal defal ko Bastion Sidi la ko mujjee defal président demal na xale yëpp kon lii du buzz du coow du du du du du du kéemaan président Wally demal na Sidi c'est normal da ko war a demal parce que mi ngi demal c'est fini jeex mais sénégalais ñu ci bari ne euh, yow li nga xam ne moo di jubóo di Wally Ballago ak Sidi Diop arrangé wut ki nga xamné modi omoro naka ngay jàngate yéen ci wa xam nga man euh, ndeysaan ku ma xamul rek xamoo té limay wax chaque jour rek omoro c'est un incompris nit la ko xamné ñi koy xam ci dundam dun bari ñu bari bu mu déwé lañ koy xam yalla na wa bu génné aduna ba témoignage ci takarna ci ku ñu juk di sédé la nga ci ci la ay nit di toog taf seen loxo ci gémmiñ na nekkate sa sawaay nii la meloon waaye fekk maa ngi dund ñëpp jaam ñi duñ ma xam loolu dogal suñu borom la tama ma sante ko yàlla bu baax baax mais dama la ne man président Waly jubóog àddina mooy sama avantage waxuma la siid de mu jubóog àddina monde entier ñoom Davido ñoom Chris Brown ñoom Burna Boy ñoom euh, Sidiki Diabaté xale yi ñoom ñëpp ci Afrique président boole jubóog ñoom di liggéey ak ñoom man mooy sama avantage parce que man njariñu président moo ma ñor man sama njariñu bopp ak sama yokku bopp ak sama amu bopp ñortuma ndax dama jël engagement ci jëmmam ñaari ñam moo ñor yokkuteem moo ma ñor jëm kanamam moo ma ñor man président Waly xuloog Samba ak mu xuloog Demba ak mu jubóog Samba ak mu jubóog Demba man aw ma ca yàq aw ma ca defar parce que xam lu président moo ma ñor weex na mën a ko tàll il faut yi ñoo am lu ñu comprendre tey. Eh, gis nga man ni may ànd ak président Waly du ànd showbiz parce que moom jàppewu ma showbiz su ma jàppee woon showbiz ma ànd ak moom ànd showbiz président Waly dafa réer ñu bari ci sama diggante ak moom. parce que li li li li li li li sénégalais yi ci ëpp jàpp ne loolu la ma jàppee ak li ma jàppee bokul, sénégalais yi ñu ci ëpp dañ jàpp ne président Waly sama jëmm la jàpp wala ñu bari jàpp ne sama kàddu la jàpp président jàppul sama jëmm jàppul sama kàddu président sama xol la jàpp. billaahi wallaahi wa taalaahi soxlawul sama jëmm soxlawul sama kaddu dama ne way na ba dégg daali way na ba dégg roi di mbalaxte Omaro ñëwul way na ba toj addina toj toutes les salles de l'Europe ak li ko wër Afrique Amérique ak li ko wër te Omaro ñëwul du sama jëmm la soxla damay bunge ma damay taaral affaire yi rek affaire dama koy bunge nii rek ma masqué ko ci kaw taaral ko waaye barke Serigne Saliou Mbacke yokkuwuma ci dara wàññiwuma ci dara jàppul sama jëmm jàppul sama baat du la ci Diop Degen Baye la ma jàppee Diop Degen Baye mi ngi koy dégg dépp ba mu juddoo jàppee ma loolu sama xol la ma jàppee daa ànd ak man suuxlu ma seet ma biir ak biti na sama xol tànnaat ko teg ci loxoom peese ko xam ne nit gënu ma xol mu téye ma xol na ma jàppee. loolu nag moo réeré sénégalais yu bari mooy jàpp nañu sama jëmm la jàpp baa sama kàddu sama xol la jàpp sama xol bi mu jàpp nag li ma ko mën a fayee rek marit mooy jàppee ko xolam te jàppee gi ma koy jàppee xolam. mu indi du ma am ci moom sago moo indi mu xuloog Samba ak mu jubóog Demba arrangé wu ma euh, kii wu ma euh, dérangé wu ma man moom moo ma ñor xam nga tam moom mu ñor ma su ne weex ma ne ko tàll bu ne ñuul ma ne ko kukk lu wax laa wax lu mu waxul waxuma ko kum jubool ma jubóog yow kum xulool ma xuloog yow ku ko may jàmm ma jàmmal la ku xeex moom ma xeex ak yow waaw fofu la ànd bi toll moy man nekutuma fi di xol lima neex ak lima nakari lima beug ak lima bañ fi sama ànd ak mom toll moy xol mom ci lim ne ma nek ci ak mom lum nekul nekuma ca ni la mbir mi deme